jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu kilifa yu baax yi ci jataay bi yëpp waaye di ziyaar itam borom dëkk bi di sëriñ osmaan Sil ak mboolem jabootu na gépp ak Daaru Salaam ak Tayba ak Kër ak ñëpp rek di ndokkeel bu baax itam ñi jóge faas te Serigne Cheikh di suñu wëlëre ni mu ko waxee wax ci seen tur ñuy rafetlu bu baax itam ittihaadu ansaari diin euh, mubaadara bu am bii mu def nga xam ne loolu ñëpp xamaat nañ lu bari ci sëñ sëñ Fass noon yi ñaan yàlla mu nangu liggéey bi te tuyaaba ji mu boole na ko boole na ko nun ñëpp rek te def ko ci mbooleem jullit ñëpp rek ngir njëkkante waxtu wi dañuy wax ne nañu waxtaane mag ñi niñ daa tànne bërëb bu ñuy yare tàmbale ko ci sëriñ bi nga xam ne moom bërëb bi muy yare da ko yitteeloon seetlu nañ fu mu ne ba nit ñi fekk ko fa lam doon def nar jaxasoo mbaam mu nar a yàqu day soppi bërëb dem ci beneen bërëb loolu da koy jaral xam nga ne bi mu jógee Mbàkke Kajoor Mbàkke Bawol la jawal waaye diir bu néew la fa def la fa def sañc Daaru Salaam Daaru nekk na fa ab diir dal di sañc Tuubaa Tuubaa it nekk na fa ab diir nek na fa lu mat juróom-ñaari at daru ya salam mom nek na fa ñaari at waye bi mu joge Touba itam ci la sañ ci bari jorof Jolof fe la joge dem ci Mui muy tem bu am solo nak ndax jamono ji nu toll nga xam borom xam-xam yi ñi ngi wax ak talawus al bii moy tak tak ak xajam bo xam dafa nek ci environnement bi te loolu ni mu amee ci jaww ji noonu la amee itam ci bërëb yi itam ak ci biir nit ñi itam fi mu ne nii ci dëkk yi nga xam ne rawatina dëkki taax yi sa xale ak sa doom ngir nga yar ko loolu jafe-jafe la moom bu rëy rëy sax ndax man ngaa sàmm dogu ci mu bañ a génn kër gi waaye ci biir kër gi lay yàqoo te doo ko yëg ndax mboolem yi yàq dañ ko dajale léegi ci jumtukaay yu ndaw yo xam xala bi mën na koy jëfandikoo ko yi kon tan bërebu yar ni ko mag ñi da defee ak la tax ñu da ko def ak nañ da yare loolu lu mat di fatli la mag ñi sétlu nañ ni sëriñ bi ak mbolé mag ñi ko topon sëriñ bi da leena xir ci ñuy dem ci all bi di fa sanc ay dëkk yoo xam ne ca la ñuy mën a defe liggéey biñ daa def loolu moo indi mirina gi xëy na sax mirina lu yàgg la waaye daru salaam ak penc yi nga xam ne moo ci mirina ak yeneen yoo xam danañ ko tudd léegi buñ masaa ñëw ci àll bi liñ fa daa def mooy jihaat fa ak seen bakkan waaye di fa liggéey itam loo xam ne lu lew la di ko ngir jëfandikoo lu lew dafa bokk ci lii tax sag jaamu yàlla yàlla nangu ko Sëñ Tuubaa dafa wax ne nit ki lu bari bari xam-xam lu jaamoom bari bari bu dul jëfandikoo lu lew la muy jëf yàlla du ko nangu yonente bi sallallahu alayhi wa dara wax ni boo dee ñaan yàlla loo sonn ca ñaan nga te la ngay jëfandikoo léwut li ngay ñaan yàlla du ko nangu sayiduna saad ba mu ko laajee nan lay def ba lu ma ñaan yàlla may ma ko yàlla nangu samay ñaan da ko wax ne ko yaa saadu atib mataamak takun mustajaaba daawati dangay fexe ba li ngay lekk lew soo ko defee loo ñaan yàlla nangu ko kon mag ñi buñ mësaa ñëw ci àll bi dañ fi daa jihaad ak seen bakkan waaye dañ daan liggéey itam lu lew luñ mën a jëfandikoo loo xam ne dara du ko rax ci lu yàlla gërëmu waaye dañ fi daane itam ngir tërbiya seen bopp tërbiya ruuxiya waaye tërbiya itam seen njaboot tërbiya ruuxiya ak jasadiya mooy yar seen jëmm ak seen roox dañ fi daal day nekk itam ngir génn ak dindi li ñuy wax ak tabaqiya xam ngeen ne dëkk yu mag yi classe sociale fay yomb juddu yo xamni ni day wutale nit ñi le len ci kaw ay métier ak yuri ni lolé nak nag seen dëkk yoyu de loolu fa am loolu moy gattalu liñ da def ci all all bi la ci jitu kon moy dañ fi da beru ngir jaamu yalla xam ngeen ne doomu adama li tax yalla indi ko ci kaw suuf moy mu jaamu ko suñu borom waxna jaam ñepp ni len fa firru ilallah inni lakum minhu nadirun mubin na ngeen daw wuti yàlla kon jaam bu ne war naa lijjanti ba diggam ak yàlla jag loolee nag la la koy may lu la ko mën a may rek jar na ko ci kaw suuf te bokk na ci li ko gën a mën a maye mooy nga moytu environnement ak bërëb yi nga xam ne dalay lay fabbi day dox sa diggante ak yàlla Cheikh Abdul Xudos Mbakke dara wax ay nit ñoo xam dañ daa tukki mu leen daa wax ne na ngeen moytoo wut adduna ba addu ba far ko ñàkk nit dana kër kër ci aduna ba mujj li ko taxoon a ñëw ci aduna muy jaamu yàlla ak am yàlla ak wut yàlla ak dox jëm ci yàlla loolee dootu ko amati sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi imam muslim nett li dafa wax ne te sayyiduna sa'd ibn abi waqas nett li ko wax ne dama mësa dégg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allaha yuhibbu al abda altaqiya alganiya alxafiy yàlla lim gën a bëgg mooy jaam boo xam ni da koy ragal te doylu te nëbbu boole ci itam nëbbu itam ci ku ne xam ne ne ci àll bi nga ko mëne sayduna abu saïd al xudri wax na ne mas naa am waa ji ñëw ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam laaj laaj ko ne ko ayu naasi afdalu ya rasulallah kan moo gën ci nit ñi yonente bi ne ko ki gën ci nit ñi de mooy jaam boo xam ne dafa gëm yàlla di jihad ci bakkanam ak ci alalam te yàlla rek tax mu laaj ko ku ca topp nee na sayidna muhammad ne ko rajulun mu'tazilun fi shi'bin min ash-shi'abi ya'budu rabbahu waa joo xam ni dafay beru ci xur di jaamu yàlla xadis muttafaq alayhi am na benn riwaaya boo xam dafa wax ne yattaqi wa yadau nnaasa wa yadau nnaasu min sharrihi aw kama qala alayhi salatu wasalam mooy waa joo xam ni day nekk fu wéet di fa jaamu yàlla di fa wéetal boromam di fa dunde lu lew kooku mooy kii gën ci nit ñi loolu la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax am na beneen xadis boo xam ne buxaari yi moo ko nettali boo xam ne yonente bi dafa wax ne yuusiku an yakuna xayru ma lil muslimi ganaman yatbacu biha saafa aljibaali wa mawaqi alqatri yafirru bi diinihi min alfitan des na jamono ngi ñëw lii gën ci li nit ki fàggu mooy mu yor juram ci digg àll ba di leen sàmm ngir rawale diineem ngir mën a mucc nag ci fitnay jamono jooje te jamono jooju ku ne xam ne agsi nañ ci kon loolu moo taxoon sëriñ bi di nekk ci digg àll bi fu ko nit ñi fekk ba nar a yàq liggéey bi mu doon liggéey mu daw leen dem feneen buñ seetloo magi murit yi kenn ku ne am nga sa dëkku bopp docteur Khadim Sill yal nañ ko yàlla fayal te gën koo dëgëral def na gëstu bu yaatu yaakaar naa euh, doctorat autoroxatu doctorat euh, wax na ca ci li liñ bind ci dirasaat xawlal murid yi man gisuma autoroxa bi waaye wax na ca ne murid yi sanc nañ lu xaw a jege ñeenti téeméeri dëkk bu ma juumul sax docteur Khadim dégg naa ko ginnaaw mu wax ne moom lim na ci lu ëpp loolu ginnaaw bi lu mat ñeenti téeméeri dëkk yoo xam ne ay murit a ko sanc mag yi njëkk mag ñi njëkk ànd ak sëriñ bi daan kenn ku ne am nga sa dëkk bopp doo am sax benn dëkk ay dëkk ngay am mën nañ ci joxe misaal ku mel ni sëñ Mouhamad Lamine Gaye jëmmoo yi kooku mën naa ci lim lu xaw a jege juróomi dëkk yoo xam ne xam naa ko tàmbale ko ci Firdawsi ak Kaylaan ak Jaylaan ak Tuubaa ak minnatul ulya ak bushra ak feneen ak feneen ku mel ne sëñ bay jaxate moo yeesalaat xuru mbàkke waaye am na dëkkam bu ñu xojal ku mel ne sëñ seex coro bari na dëkk yoo xam ni sanc na ko lu mel ne jooreel ak yeneen ak yeneen ak yeneen sëñ maxtaar bintaloo borom ñoom re ak surra man raa ak yeneen ak yeneen sëñ siréloo mooy borom sënnoo si ñépp xam ko señ balla li jeng daru jeng ak colom ak keur xar jeri ak fenen ak fenen, borom sam, señ mamour jaara momom mesere gi ñu xam ci eh, boy dem touba ak ndokko ak fenen ak fenen ak fenen, borom daru moxti ku ne xam na 40 km yi nga xam ne mom la mom la gor daarul moxti nek ci digg ba ak ak fenen ak fenen, mam cheikh anta moy borom gawan, ak càqami ak fenen ak fenen. sëñ Balla Coro kër Sërif ak Mbakke Saalum ak Mbar ak feneen ak feneen sëñ ma Lumbe kër Mëgey Xabbaan Saam Dendey ak feneen ak feneen sëñ Mbakke Buso noonu it moom it am na fu mel gere Buso moo ko sant ak Daarul Maraam ak Daarul Shakur Xadayiqul Fadayil ak feneen ak feneen sëñ Daaru Asan Njaay noonu Daaru Salaam Daaru Njaay Daaru Xadim sëñ ma sàmba Diop Saam Daaru Saam loolu mënoon nañ cee lim lu dul jeex kon magi murit ñi bo seetloo de da ngay gis ne mag mu ne ginnaaw bi la sëriñ bi defaree da nga dem sañ ci bërëb nek fa di def liggéey bi sëñ bi doon def ci yow nga koy def ci ñeneen sëriñ bu mag bi nak buñ seetloo ay dëkkam dafa am num da tëddee no xam dafa wuuteeg dëkk yépp day tambali ci tàmbale ci tour bi bismillah bismillah waaw kooku ak si léegi mooy Serigne Mbaye Mbacke moom Serigne Abdoulaye borom dër bi moo ak si fii la dëkk nag fii mooy këram ndax sëñ Mbaye de nii bi tegal fii sëñ Mbaye da tegal fii moom sëñ moo moo xëy moo moo moom lañ ko tuddee moom ci turam woowu dafay déggee dëkk mbooloo moom xam day wax ni man Mbaye fàtte ko waaw sëriñ bu mag bi ay dëkkam dama doon wax ne boo seetloo day wuuteeg dëkk yëpp day tàmbale ci tur wi sëñ bi tur wi muy jox dëkk day am laale day am relation ak sun borom tabaraka wa taala ay dëkk mooy daaru salaam daarul mannaan daarul quddus daarul minan daarul rahman daarul alimul xabir al al mubaraka ak tuuba yooyu mooy dëkk sëñ bi nga xam ne tur wi ku ko dégg day xam ne dëkk bi suñ borom am na fa am na fa kaddu suñ borom moo koy moo koy def baatu suñ borom dëggug suñ borom njubug suñ borom gi moo fay dox foofu la sëñ bi tàmbalee ci dëkk bi dëkk bi itam ñu seetloo am na nu mu ko daa tërale noo xam ni jàkka mooy nekk ca digg ba di bërëb ba gën a rëy gën a yaatu xam ngeen tubaab yi dëkk tubaab yi boo demee day am place yoo xam ni ab monument lañ fay def wala yu nga xam ne mooy doon digg dëkk bi mooy centralu dëkk bi sëñ Tuubaa nag ay dëkkam bokk na ci lim ràññikoo mooy dafay jàkka mooy nekk ca digg dëkk ba ba tax na loolu moo tax këram yëpp mujj di jàkka mooy li mu wax ne wajaal buyooti kullaha masajida yaa naafiyan man laa yakunu sajida Sëñ Tuubaa fu mu mas a dem la muy njëkk a def mooy tabax fa jàkka Cheikh Abdul Xudoos daana wax ne dëkk bu mu mas a sanc rek tabax na fa jàkk te moo koy jiite yitam loolu itam buñ seetloo Cheikh Sidiya ba babul Cheikh Sidiya noonu la ko taggee ci xasida taayam boobu yi nga xam ne bu mucc ayib la bokk na ci dëkki sëriñ bi ak mag ñi nga xam ne ñoom la yaroon li ñuy ràññi itam mooy dëkk bi boo fi duggee da ngay xam ñenn ñu ne seen métier ñiy jàng alxuraan seen daara ja du bokk ak ñiy jàng xam-xam fa ñu ne. du bokk ak li ñuy wax daaray kaamil du bokk ak ñi nga xam ne dañuy tërbiyewu di liggéey ci tool yi du bokk ak bërëb bi nga xam ne dañ koy def ngir gan ñi. biir kër gi itam dañ ko boo ci duggee da nga xam ne fii këru murid la wax na ne kees yi ñuy def. sëñ bi moo ko njëkk a tàmbali am na ñu wax loolu sëñ bi boo mësaa dugg ci ci kër yi sëriñ bi ak mag ñi dangay gis ne dañ koy xaaj am bërëbu góor ñi ak bërëbu jigéen ñi dañ koy teqale ak bërëbu dongay tërbiye yi ak bëkk néeg yi kenn ku ne du bokk sa morom moo loolu muy indi kees yooyu ak bërëb bi nga xam ne ci la sëriñ bi daje ak taalibe yi dëkk bi itam waxtu wu ne mbooleem lu fi juddu yi nga xam ne mooy tax dëkk taxaw dañ ko daan lëkkale ak suñu borom gis nga ca Touba mën nañ ci joxe misaal ci Touba biñ see teen ba ba teen ba bënn suñ suñ bi da ko tuddee aynu rahmati def ca xasida goo xam ne ma ngi ko tënkee ma ko tënkee wa fajjar na larda uyunan ñaari xasida la itam ñaan ci ay ñaan yoo xam ni yu barkel la dëkk bi itam dëkku murit foo ko mas fekk day nosu te tegu ciw yoon kenn ku ne di nga am loo xam ne mooy sa métier wala fuñ la féetale foo xam ne ca ngay liggéey ñi féete ci jàngale alxuraan ak jàng ko ak ñi féete ci bind ay kaamil ak ñiy jàng xam-xam ak di ko jàngale ak ñiy liggéey ci tool yeeg yeneen kenn ku ne da ngay nekk ci loo xam ni doo joteeg sa moroom dara waa tool yi ak ñiy liggéey ci tool yi ñooy dundal daara yi mu nekk loo xam ne dañuy mottalante biir dëkku murid yooyu boo jëma saa dugg doo xàmmee catégorie sociale yooyu ak classe sociale yooyu doo ko gisati xam nga ne Sëriñ Tuubaa mag ñim njëkk a yar xawoon naa génn ci ñoom yi teqale nit ñi te yàgg ci société wolof wolof dañoo am ay classe yoo xam ne sociale yoo xam ne dafa judd ci seen biir te ay métier moo koy waral ñi ëw ak ñi yat ak ñi teug ak ñi rabb ak ñi wax histoire ñu leen yoi ñuy wax histoire yu yàgg yi ay ay ay métier la yo xam dafa juróon nak ay manam classe sociale ni mako ni mako meuna tuddé waye tuddee bo gisé ci biir société mouride loolu suñu bi da ko cee génne woon moom da jël métier yooyu di ko def lo ñeneen ño xamni bo leen ko xamé ñi nga xam ne ay sëriñ lañu woon di jàngale alxuraan mu leen def loo métier yii nii comme ku mel ne suñ Cheikh Fatou Tako da ko daa yettloo ak ñeneen ak ñeneen loolu sëñ bi da ko fay génne woon dafa wëlbati woon adduwaar yi di leen boole ci ay sëy di jël métier yi di ko jaxase itam loolu moo taxoon boo masaa dugg ci biir dëkku murit doo xàmmee euh, kii lan moo ci saanam ki ngay xam li ngay xam mooy ku gën a ragal yàlla rek is akramul ibadi inda allahi aktharuhum taqwan bila ishtibahi loolu la suñ tubaa daa wax ki la gën a ragal yàlla kooku moo la gën a baax moo la gën a tedd moo la gën bi annama tafawut alwara fi lilmi wa diini yakunu fasbira loolu la bi daa itam bokk na ci lim ràññi mooy am po dawu fa am kenn itam du ne ci loxoy neen suñ tubaa da ko daa aaye suñ wax na ne moytu loxoy neen suñ tubaa dara wax ne ama albitaalatu wa tadyiu alumur bi gayri ma fadaauhu yadur borom daarul moxti bokk na ci lim gënoon a bañ mooy nit ku toog deful dara wax na ne mag ñi daal toog fi moom kum gis nga toog difoo dara dala joxu biteel ne la del formé leen daani di ci buy séddale dara sax ñay liggéey day wax ne joxal ñay xolli gerte ak ñi ñay def nangam ak nangam ñi nga xamni tok nañ defu ñu dara ñom lay mujj sedd bëggul ku mas di tok te defo dara lool te lool ci suñ tubaa ko jànge kon loolu mooy gàttalu dëkki murid yi ak niñ ko da teurele ñu ñëw nak ci terbiye gi terbiye gi itam xam ngeen ne mën ta ñak nit ki faaw ñu yar jëmmam faaw ñu yar itam ruuxam سونو بوروم واخنا سي القران ني واتبع سبيل من اناب الي ولكل قوم هاد نيت ني نه يالا بولال نا لين كو خامني مو لين دي جوبنتي دوما دما يالا دكو بيند نو خامني فاو ñu yar ko yar jëmmam yar ruuxam fexe ba xolam set ñu génn ci mbooleem jikko yu bon yi dugal ci mbooleem loolu moy tax digam ak yalla mën a ratax muy jëf te yalla kese kese tax moy tax selal mu man koy jëfandikoo yar bobu nak du ñepp ko man faw nit ki faw momit ñu terbiye ko faw mu am euh, terbiye gogi terbiye ruhi boobu man ko man do ko man def ci ñeneen loolu motax ñu daa dem ci serigne ba buñ démé bayé ko seen bop mu tërbiye leen def ci ñoom génne ci ñoom mooy taxliya ak taxliya ak tajalli lii mooy jiitu mooy génne ci yow mboolem jikko yu rëy ak kañaan ak naw jëf ak ngistal xeeti jikko yu bon yooyu mu génne ko ci yow ba nga xam ne yow dootoo bàyyi xel ku may yàlla Sëñ Tuubaa dara wax ne murit benn yitte la war a am mooy ngërëmul yàlla kese man lam yuri shay'an siwa mawlaahu yasid lahu bu génnee ci yow mboolem yi taq nag dugal ci yow mboolem li jag jikko yu baax yi mooy ak selal ak bàyyi xel yàlla ak di xalaat ci kawte fi suñ borom yi ak ragal yàlla ak yi ni demee loolu bu saxee ci yow moo lay jural tëjal lii mooy sa xol leer nga mën a nag gis màgg suñu borom bi tabaraka wa taala nit ki xolam day dee suñu borom nag bu ko dekkalee bu dekkalee xol bi da ko jox leer goo xam ne ci lay doxe ci biir nit nit ñi leer googu nag moom la yonent bi wax ne ittaqu firasat al mumin fa innahu yanduru bi nuurillah loolu ak doxin woowu Sëñ Tuubaa da koo gàttal ci nett boo xam ni mi ngi ci majmuwa bu mag bii te sëñ bi dara wax ne murid bi buy doog buy doog a dugg ci buy doog a jébbalu moog liir buy doog a juddu ñoo ñoo yem ne liir buy doog a juddu amul lenn lu mën a jëfandikoo lu may meew mi balle ci wenn ndeyam meew mi balle ci wenn ndeyam moom kese la mën a jëfandikoo mën ta jëfandikoo ceeb mën ta jëfandikoo yàpp mën ta jëfandikoo leneen murit bi itam noonu la demee bu jébbaloo li ko sëriñ bi digal yoon wi ko sëriñ bi tànnal rek moo ko jariñ leneen du ko jariñ sëriñ bi da ci teg ne itam liir bu ndeyam amee soow day feeñ ci moom teel bi itam noonu la bu fekkee sëriñ bi day sëriñ bu matub sëriñ te baax te ragal yàlla day feeñ ci taribe bi sëñ bi da ci daa teg nag ne na xam ne yéen seen ndey ku amum soow la te ku nàmp ci moom dinga nga màgg te di nga am xel te di am kattan wax ne nag na ngeen sax ci seeni ndey ba mu feral leen bu leen feralee nag na ngeen moytoo mëq suuf wax ne nag kuy mëq suuf dangay feebar te ku feebar mën ngaa faatu te boo faatoo yàlla yàlla musal ci loolu ne nag suuf si mooy adduna ak waa àdduna Sëñ Tuubaa bokk na ci lim da njëkk a ci ab murit mooy génn ci moom bëgg àdduna bëgg adduna ci xol lay buuf lay boof Sëñ Tuubaa dara wax ni àdduna dama doon dàq di ma dàq di ma dàq ba mujj ñu ne ma taxawal bi ma taxawee adduna ñu wër ma ci wet yépp ne ku bëgg agsi fi man dangay ngay jéggi adduna moom doo agsi ci man moo tax Sëñ Tuubaa nag da ci teg ne liir bu gisee ndeyam du am soxla ci keneen moo tax murit bi itam sëriñam kese moo war a nekk yitteem waaye nag loolu jotuwut ak dara war ma ji war a jox mboolem sëriñ si ci des yépp loolu jotewuñ dara suñ Tuubaa nag ni daa tërbiyaa ci gàttal rek la ca jiitu mooy ku masaa ñëw fi moom Sëñ Basiiru dafa wax ne la muy njëkk def mooy jàngal la sa say farata ba nga xàmmee ko loolu lay jëkkee yow nga am yóbbal bu doy ci tawxiid am yóbbal bu doy ci fiq am yóbbal bu doy ci tasawuf waxoon na ne awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min at-tawxiidi lii murit bi war a jëkk a yittewoo mooy am yóbbal bu doy ci tawxiid ginnaaw ba mu jéem a xam ni euh, jëfi yi nga xam ne moom lañ ko gàll te cër yi war koo def mu xam nan lañ koy defee ginnaaw ba nag mu doog a sóobu nag wa baadahu yasluku inraamal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul kon jàng moom lay jëkk ak yow jàng moomu danaay wax ne seetewu ci woon kenn sëriñ Cheikh moom sëñ Muntaqa ci téere bi mu bind sëriñ bi tudde ko xayaatul murabbil hakim wax na ca ne sëñ Muntaqa nettali na ko ne sëñ Basiiru nettali na ko ne maam Cheikh Ibrahima Fall keroog bi ñëwee jébbalu ci sëriñ bi risaalatu ibnu abi zaydin la ko sëñ Tuubaa njëkk jàngaloo ginnaaw na maam Cheikh Ibrahima Fall la sëñ bi setewul ci njàng mi kon mos cee sette keneen moom jàng moom yi nag boo da nga koy boole ak liggéeyu tool yi sëñ bi dafa wax ne sëñ bi daa seetlu ni ñi dëkk Kajoor ak Bawol dañuy dañuy gaaw ak tayal da leen di yomb moo tax ku mas a ci moom faw mu liggéey loola tàggat la ba dindi tayal ci yow waaye liggéey bi itam day ànd ak téye saw làmmiñ di la digal nga moytu jaxasoo rawatina jaxasoo jigéen ñi dina la digal itam nga fonk tudd yàlla nga xam ne waxtu wu ne dañuy tudd yàlla di jàng xasaa yi di sëriñ bi boole ko zikkar laa ilaha illallah sëñ ba mu nekk Tuubaa moom ci boobu moo daa moo daa dëbbe sax laa ilaha illallah ji mag ñi di ko di ko di ko di ko tontu moo daa nekk ci biir mbaar mañ ko fa defaloon di wax laa ilaha illallah loolu Daaru Salaam sax la ko tàmbalee lañu wax xasida yi moom waxtu ne dañ ko daa jàng loolu yi bu saxee ci ñoom mu boole ci nag di leen feral loo seen bakkan xamal leen ne leen bakkan képp koo xam ni bëgg naa mucc day fexe ba moytu moytoo topp bànneexi bakkanam moytoo bëgg adduna moytoo bëgg daraja tey sellal sa yéene te looy def mu dëppoog sariya noonu la ko Cheikh Mouhamadul Bachir waxee bolé koog sellal nak ci lépp seigne Cheikh mohammed Lamine Diop daga dafa wax ni boma ma lan la seigne bi doon wote jëm dama lay wax ni sellal rek ikhlas mom la doon wote jëm lol nak day ànd ak ni ñuy tudd yàlla waxtu wu ne guddi ak beccëk dawuñu dawuñu ko wutal waxtu seigne Tuubaa dara wax ni khayru taami lil muridi saliki dawamu dhikri dil jalaalil malik murid bi nga xamne dafa bëgg a dem ca boroomam yitteem jenn la war a doon ak aw ñamam wenn la war a doon te muy tudd yàlla saxoo ko tudd yàlla dina wax ne ci alquran kasiran la sant suñu borom fu mu waxee tudd yàlla rek day wax ne na bari ya ayuha alladina amanu dkuru llaha dikran kathiran wa dakaru llaha kathiran wa dakara llaha kathiran wa dakirina moom la sant ci alxuraan xeet tudd yàlla yépp nag ci njëlbeen da daa jox wirdu turuq yi alqadiriya ginnaaw bi mu amee jotee wirdul maxuus mu di ko joxe bokkut ak xasidaam yi nga xam ne nag tudd yàlla rek la ndax lépp jéggulu yàlla la ak sant suñu borom ak julli ci yonente bi ak tagg ko ak suñu borom tabaraka wa ak ñaan sëñ Basiru nee na loolu bu saxee ci ñoom mu dolli ci nag di leen fexe bañ fahmul musaawaat noonu la ko Cheikh Mouhamed Bassir tudde mooy fexe bañ xam ne ñoom nit du gën moroomum nitam ci lu may gën koo ragal yàlla neen loolu sëñ bi da ko daa jëmbat ci ñoom te loolu mooy li wax ne id akramul ibadi inda allahi aktaruhum taqwa bil istibaahi loolu itam da ko daa boole di leen di jëmbat ci ñoom sàmm teggin sa ak sa borom ak sa ak sa morom señ tuba dara xam teggin ñaar la teggin yi dox sa ak sa borom yooyu mooy teggin yi nëbb wa ak teggin yi dox sa ak say morom te mooy teggin yi yi fës mag ñi dañoo amoon teggin ay teggin dara feeñ ci seeni wax ak ci seeni jëf ak ci seen axwaat yépp señ tuba dara wax ne teggin mooy maye yàlla jaamu yàlla yii moo lay tàbbal àjjana moom moo lay may àjjana waaye teggin moo lay may nga neexoog suñu borom tabaraka wa taala li annahu bihi ila arrahmani yasilu abdun wa ila aljinani fa kullu man bi ghayrihi rama alwusul li hadrati llahi fa ghumrun la nabil wax na ne nit yàlla yi la leen àggale ci yàlla du julli yu bari du woor yu bari du aj màkka gu bari sàmm teggin moo leen àggale ci seen borom tabaraka wa taala sëñ Basiir wax na itam ne loolu daw ci yem da ci daa boole di jataayoo ak ñoom di jataayoo ak ñoom di leen jox ay bind ci diggante yi nga xam ne duñ ko liggéey mu jataay ak ñoom di leen jox ay bind yoo xam ne leen koy tombal ci jataay yooyee nag lay génne ci ñoom mboolem sikki yi sikki bakkan yi di leen eh, xamal dëggi-dëggi diine yi di leen yéege itam ci ñu gën a takkaayoo ci jikko yu rafet yi laabal seen xol sellal ko leeral ko génne ci mbooleem luy taq-taq te def seen yitte muy yenn te mooy yàlla subhanahu wa taala ànd ak tuub nag gu sell te dëkke ko ak dëgmal yàlla goo xam ni du du du du du du dañ mukk te doo ci jóg mukk ak dëddu aduna itam ak it koy andal ak koy bëgg nga bëgg ko te yàlla kese kese kese tax sa xol itam nga tëj ko ci kasob tudd yàlla ak fàttaliku ko say cër itam di jëf lu neex yàlla waxtu ne sëñ basiru neen lool yi la daa jataay ak ñoom di ko di leen ko di leen ca daana wax ay hikam yu bare bare bare bare moom sëriñ bi daana wax ne Euh, ñeent a ngi nii yoo xam ne ku ci sax dinga mucc adduna di nga mucc alaxira te mooy yéenew yiw ak di waxu yiw ak di jëfu yiw ak taqo sax ca boole ci loolu yi loolu da ko boole ci bayit mooy inwi wa qul wafal wa lazim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi loolu yi daana ko def itam ci wolof ci gàtt mën nañ cee jël misaal lim daa wax ne àdduna dafa gàtt te mi gatt gatt dunduk do ma dama ko gëna gatt te dundug doomu ma li muy gatt gàtt fi mane ak fimi télé ko gëna gatt te yàlla dala sak ngir nga jaamu ko kese te lolu xeyna na mënees na cee dolli ne fi ngay maneeg fi ngay télé limi gatt gatt itam bo ci génné yi li ngay jox aduna ak li ngay wuté aduna ak li ngay sakku ci aduna la ca dess nga man ko jox sun borom lu néew lay doon kon góorgóorlu lu ko mat la sëñ bi daana wax itam ne aduna ken deful ken dara ken defalul ken dara lu way def bopam daana wax itam ni na ngeen rafet njortu te baña top njortu ne rafet njortu ak topp njort bokkuñu rafet njortu moy lu yalla digle nga jëm sa nga jëm ci sa kem katan. lu muy tere nga di ko moytu sa kem kattan te lum mu diggee na nga yaakaar ci topp njot nag mooy li yàlla digle doo ci def dara li yàlla tere doo ca bàyyi dara lu mu diggee nag nga yaakaar ne yaa ci gën a yey daana wax murit itam ne leen am na juróom benn kiiraay yoo xam day doog ab murit di dox diggam ak boroomam la ca jëkk mooy xéewlu gu bari ak naan gu bari ak jaxasoo bu bari ak wax ju bari ak nelaw yu bari ak sàggan ci tudd yàlla daana wax itam ne murit dafa war a def waxtu wu ñëw lam ca war a def mu bañ ko xaare ëllëg fa saadiqul muridi man yanqalib bi xukmi waqtihi wala yartaqib amaamahu waqtan fa inna daaka yamnau min islaahi ma hunaaka wax na itam ne ñett ngi nii yoo xam ne dañ ko bind ngir ñett sa xol bi ngir xalaat jëmmi suñ borom ak i kawtéefam kese moo tax yàlla bindal la ko làmmiñ ngir tudd yàlla kese ak fàttaliku ko moo tax yàlla bind ko sa yaram itam ngir liggéeyal suñ borom ci di ko jaamu ak di jëfandikoo lu koy gërëmloo kese moo tax yàlla sàkk ko daana wax itam ne am na ku leen di gàllankoor muy seytaane waaye li leen ci musal loolu ñett la la ca jëkk mooy fonk jàkka ak saxoo tudd yàlla ak jàng alquran yooyu moo leen di musal ci ci ci ci seytaane kon loolu mooy dénkaan yi nga xam ne daana ko wax di ko jataayoo ak téere bi yi nga xam ne moom la ñoom la la daal tërbiya buñ seetloo itam mbooleem magi murid yi nekkoon ak moom daanaka ku ci ne ñu bari bokk ci ñoom defal na leen ab dénkaan sëñ Daam Abdourahman Lo defal na ko dénkaan boo xam ne mooy fatxul manaan fi jawaabi abdurahman la ca jiitu mu njëkk ko dénk mooy na nga ragal yàlla usika wa nafsi bi taqwallahi al azim li annahu afdalu min kulli shay dénk naa la dénk sama bopp nanga nga ragal yàlla sëñ aadama gay defal na ko dénkaan moom it ay bayit la ma nga tàmbalee ci xamdan liman qad awjaba suala an alladina karihu dalala ba wax ko ne ko hada wa ya aadamu ya muridu in kunta nuura rabbina turidu fa dum ala ibadati rahmani wala takun min abidi niswani noonu la ko tompe toppee mën nañ ne mag ñëpp man damay jàpp ne sax ñëpp la ko defal soxna pend Jóob ba ci jigéen ñi soxna pend wasiyatu soxna pend ku ne dégg na ko sëñ mahmoud de defal na ko euh, dénkaan bu tàmbalee ci alayka ya mahmudu bil iqbaali fi sirri wal jahri lidil jalaali ba ci cheikh ibrahima fati mbokam yi ñom ñëpp def na len ay ay ay denkaré masamba euh, kan cheikh abdullah sar cheikh ibrahima kan ba ci dénkaan yo xam da koy boole murid yëpp lool ci tërbie gi la bok itam moy kum dem ba euh, terbiya la defar la ba nga mat sekk da lay jox dénkaan bo xam sa ngiru dund boko ko dara du ci carte yow ba taxna buñ seetloo ñi génne ci moom tey ñu jag ñoo xam ne jagalaat nañ ñu bare bare bari kenn xamul duñ toll man nañ caa lim Cheikh Ibrahima Faati mi ma waxoon léegi sëñ Mbàkke Buso sëñ ma sëñ ma Samba Mbàkke sëñ Mamoor Jaara sëñ Abdourahman Lo sëñ Adama Guèye Cheikh Ibrahima Sarr Njaa Njaañ Cheikh Ibrahima Sarr ak maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ ma Samba Diop Sam sëñ Mouhamad Ndumbe Xabbaan ak sëñ Daaru Asan Njaay Cheikh Ibrahima Fall sëñ Isaa Jenn sëñ Mabaabu Géy sëñ Mor sa Loo sëñ Mouhamad Loo Dagana sëñ baabakar Jaxate ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni mbooloo lañ moo xam dañu moom sëñ bi moo leen defar ni sëñ mbakki bu sa wax ne yaakaar naa moo ko wax man man talqa minhum taqul laaqaytu sayidahum mithlu nujoomi wala mithlu nujoomi alladi ti yasri bi saari koo ci dajal da wax ne man sang balaa dajal fekk ñoom ñëpp dañoo defaru si yàlla mu defar seen jëmm defar seen biir defar seen biti ñu sell eh, ba loolu it moom lañ toxalaat ci mbooloo mu kenn xamu nuñ toll foofee nag fa la leen di wàcce bàyyi leen ñu dem léeg-léeg ñu siyaar si ku ñëw itam mu di la dénk loolu Cheikh Mouhamadou Lamine Diouf Dagana wax na ko sëñ Basiiru itam wax na ko bokk na ci lim leen leen daa gën a dénk nag mooy moom ñu bañ a waru ndax nit ki bu demee ba amul mbaax wala mu jub lim gën a war a moytu mooy waru wala gis boppam walla gis yëg dara ci boppam loolu mooy gàttalu waxtaan wi noo ngi jégalu bu baax a baax amoon nañ ci yéene lool wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.